Serigne Touba mun Mountakha Mbacké xalifa général kullu murit di yokk ñaan yàlla mu may ko fanu gudd lool mu ànd ak wér yaram ba lépp lu mu bëgg a liggéeyal Seex Xaadim mu liggéey ko. di ko lawal ba ci mbooleem ñi mu bokkal Serigne Touba ñëpp ak mbooleem ñi mu bokkal diine lislaam di nuyu ak ziyaara ak sargal xalifa général kullu Baay Faal di. Sëriñ Amdi Modou Mbende Fall mi nga xamante ne moom la ñuy xoolee jëmmi maam Cheikh Ibra Fall Babul te mu mat ko sëkk ci taxawaay ak jëf ak liggéey ak nangu ndigal ñu am mbégte nag teew tey fii ci Touba jannatul mawa péncu maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine ci kër sëriñ Serigne Amdi di benn Fall jàkkaarloo ak sang yu sell yi nga xame ni si ñoo woote jataay bi muy kuréel gi nga xamee ni mooy saytu war may Touba di sàmm ak aar ndigal li nga xamee ni moom la mun Mountakha Mbacké jox njabootu maam Cheikh Ibra te ñu ànd ko ak taalibe bi yëpp muy sàmm war may Touba aar Touba sellal Touba te ndeka jekk ngeen yàgg dégg seeni déclaration gis seen taxawaay ci biir dëkk bi muy taxawaayu ràññeeku lool. jataay bi nag li ko waral mooy fàttaliwaat waa Touba Mbacké terey sëj bi rawatee nag fii jamono tollu. ak xew-xew yi nga xame ni si moom lañu weesu xew-xew yooyu ñu dégg si yu baree baree bari ñu ni kon nag jaadu na yell na war na kuréel gi jëwriñ yépp teew fii tey fos yéenee leeral askan wi mbir yi weesu nan la demee waaye leeral tem nag seen jubluwaay ak seen taxawaay bi nga xamee ni moom lañ fos yéenee ànd ak jullit yépp sàmm war may Touba ni ko Serigne Mountakha Mbacké joxe njabootu maam Cheikh Ibra Fall te ko ak jurit yëpp kon xam naa dañuy jëkk a jébbal kàddu gi Serigne Alioune Fall moom maam Ndam Fall moom Serigne Saliou Fall borom daaru xafoor moom nag ñu fàttali leen ni moo yore wàllu communication ci kuréel gii di saytu war may Touba bu ñu àggalee itam dinañu leen dégtal déclaration bu Serigne daam Soda Fall mi nga xam ne ni moo yore kàddug njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall. bu ñu àggalee danañu jébbal kàddu gi sëriñ maam Cheikh Khady Faye moom sëriñ Sirif Assane Fall mu àggale waxtaan wi ñaanal mbooloo mi auzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu ak sunu bokki taalibe yi tey jiital ci nuyoo boobu ak ziyaar bi Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké mi nga xam ni mooy xalifab yoonu murit bépp di ko ñaanal suñu borom mu sàmm ko te aar ko te defal ko tawféex ci liggéey bi nga xam ne moom lay liggéeyal cheikhul xadim maamam ju tedd ji noonu it lañuy ñuy ziyaare muritam bii di jëwrinam ji muy sëriñ Amdi Fall moom sëñ Modou mbend mi nga xam ni moom lañu toog ci ab jotaayam nii te muy ki nga xam ni li sabab suñu jotaay fii lépp ndigal loole ci moom la ko sëriñ bi rotal mu ànd ko nag ak mbooleem mbo njabootug maam Cheikh Ibra gépp kon ñoo ngi siyaare aka màggal mboolem ñi nga xam ne ñoo toog ci buntu kër njabootug sunu maam Cheikh Ibra googu yëpp bàyyiwuñu kenn mu mel ni nag jotaay bii noonu ko sëñ Mor Talla waxe noonu rekk la sabab bi mooy dañoo amut lu dut lenn te loolee mooy cheikhul xadim radiallahu taala anhu moom la ñuy waaje moom la ñuy mooy suñu lépp di suñu gànjar moom Cheikh mun Mountakha mi nga xam ne nag moo fi jëmmam tey jii am liggéey bu màgg boo xam ne daf ko yëkkati wax nañ ko fi waxati ko teg ko ci loxo yi suñu maam Cheikh Ibrahima fal te loolee mu war koo ànd nag ak mbooleem koo xam ni bëggug sëriñ tubaab mooy sa yitte loole it weesu lenn la dul ñu ñoŋalal ko sëriñ bi ak njabootam gi ak dëkkam bi sàmm seen warma ji nga xam ni moom la leen suñu borom warmaal loole nag tax sëriñ bi lu baree bari mu tuddoon ko wax ni dafa bëgg ñu bàyyi ko ci dëkk bii nga xam ni mooy Touba gii nga xam ni sëriñ Touba daf ko warmaal gannaaw ba ko suñu borom warmaalee tànnal ko ko defal ko ci lim ko ci defal mu bëgg ñu dimbali ko sàmmale ko loolu looloo tax nag mu yëkkati woon liggéey boobu teg ko ci loxo yi sëriñ di Fall mi nga xam ni moo fi toogee jotaayu maam Cheikh Ibrahima Fall yàlla na fi yàgg te jamono jii nag kenn ku ne gis na ni yëngu-yëngu yi nga xam ne dafa jëm ci mbiri àdduna dafa fés lool ci ci réew mi waaye nag sëriñ bi sàkk woon ñu déeg ci dëkk sëriñ tubaab yi génne ko ci ba mu set ci wecc barki démb ku ne gis na li fi xew muy manifestation bi nga xam ni amoon na ci réew mi ñu boole ci nag dugal ko ci biir tubaab yi loolee di loo xamante ni bi naqari na sëriñ bi lool bokk na ci li nga xam ni moom lay feddaliwaat ba joxaatoon ndigal Cheikh Mamadul Bachir moom Serigne Abdul Xaadir Mbakke moom it yàlla na fi yàgg te wér mu jotalaat ndigal loolu ci Serigne bi mu xamal ko ni ko noonee mu doon digle ak tere ñu moytandiku lu jëm ci wàllu yëngatu politique ci dëkk bi mi ngi koy feddaliwaat tey nag ñi fi nekk ñëpp ak njabootam lañ bëggut kenn ci ñoom bëtam di xonq wala lenn di ko naqari dafay mel ni nag suñ fekkee delloo nañ naar bi xoromam sàmm suñu ngor suñ diggante ak Serigne Touba mi tëdd ci dëkk bu tedd bii. ak mag ñi nga xam ne ñoom la def ci ñoom ngërëmul yàlla ba mu fees dell ci seen jëmm yi war nañoo mën a warmaal dëkkub sëriñ Tuubaa bi ba duñ fi def lenn loo xam ni dafa safaanoo ak li sëriñ bi bëgg loolu nag daf koo sant Baay Faal yi te nag ñi ngi leen di xamal ne maanaam jaral nañu lu ne nag ndax sëriñ bi daf ñoo wax nañu liggéey bi nañ ko def ci ak maslaha ndax nee na sëriñ Tuubaa radiyallahu taala anhu dem na ca tukki ba ba ñëw te xat damut dara tuuru loolee nag la bëgg ñu liggéeyee ko liggéey bii waaye nag sëriñ bi lii da koo ñor ñi ngi leen xamal ne maslaa googu sëriñ bi bëgg ci lañ fas yéenee nekkee ci liggéey bi waaye nañu xam ne waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall ñii am nañ pas-pas akuk dogu bu wér ci ne li sëriñ bi bëgg ci dëkkam bi danañ ci taxaw ba suñ kemtalaay kàttan ba mu amee ko ni mu ko bëgg kon ñi nga xamal mbooleem koo xam ni dangay ngay yëngu ci wàllu politique rawatina ñii di def maanaam manifestation yi ngir yàlla jëmmi sëriñ Touba Cheikh Ibrahima Fall ñu teet ci dëkkub sëriñ Touba bi amu nag ñun amuñu nag ñun fenn foo xam ni moo ci suñu féete ñun li ñu féetal mooy ndigalul Serigne li mu ñu sant nag ci ñu sàmmal ko dëkk bi képp koo xam ne yaakaar naa yaa ngi yewwu ci dëkku Touba bii amut ci ñun kenn ku dul ne gëm nga ni boo faatoo buñ ne la jéey sa bàmmeel yaakaaruñ fa ku dul Serigne kon ngir yàlla ak jëmmi Serigne Touba ak Cheikh Ibrahima Fall mi ñuy liggéeyloo liggéey bii ak mboolem taalibe yi yaakaar Serigne Touba te bëggu Cheikh Mouhamadul Mountakha di seenu bëgg nañu àndandoo ci liggéey bii ñun ñi nga xam ne nag ñoo nekk ci kuréelu sàmm war mooy Touba ñoo ngi ci te fasuñ ci yéenee deltu gannaaw mukk ñi ngi bëgg nag mboolem koo xam ne sam xel wuute na ak lii sëriñ bi bëgg nga dimbali ñu te dimbali sa bopp génn dem defe ji ko feneen foo xam ne bañewuñ ko fa waaye fii di jëmmi tubaa di pàkku Touba bii di euh, pàkk boo xam ne suñ borom daf ko warmaal sëriñ Touba jox ko sëriñ tubaa muy muy muy tawféex ci moom mu di ñu ci dimbali mu doon barab boo xam ne barabu muccukaay la barabu rawukaay la nañu ko sàmmal sëriñ bi yëngutu yooyu nga xam ne daal amoon na fi ñoo ngi ciy dànkaafu ñëpp di leen xamal ne mboolem ñi ci nekk ñëpp nag ñi ngi leen di ñaan ngir yàlla jëmmi sëriñ tubaa ñu deltu ci ginnaaw képp koo xam ne loolu sa yitte la nga dégg fi dëkkub sëriñ tubaa bi sëñ Amdi Fall moom sëñ Modou mbenn nag ak ñi mu koy liggéeyloo fas nañu yéene loolu moom doot fi am kon nañu ci bàyyi xel bu baax ñi ngi wàcce foofu suñuy kàddu bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu ñu ngi nuy mbokk yi ñu teewlu yëpp si turu jëwriñu Cheikh Fall ji di sëriñam di Fall mu sëriñ Modou Mbenda ñu ñaan yàlla sunu borom mu guddal aw fanam lool te wéral ay cëram ba yéene ji mu am si liggéey sëñ tubaab yi mu def si lu kawe njortam te ànd koog taalibe yëpp mu njabootam gi di njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall waaye di jottali am nuyoo bu bàyyi ko ci moom ak ziar mu jëm ci jëwriñam ji du mun Mountakha di ñaan yàlla sunu borom teel nu fanam wi teel nu wéram gi ba yéeneem si seen kër Sëñ Touba mu def si lu kawe njortam noonu lay jottalee am nuyoo ak ziar it mu jëm si mbooleem njabootug Sëñ Touba gi fu nu mën a ne di leen ñaanal lii seenu bëgg si yoon wii yàlla na sunu borom jàppandal leen ko. waaye sëriñ beet di jottali ab nuyoo akub ziar nag ak cant ak i ngërëm mu jëm si njabootug boppam gi di njabootug maam Cheikh Ibrahima ñi nga xam ne tey moom la yàlla dogal mu nekk seen kanam mi ngi wax ne mi ngi leen di sant si li nu jiitu lépp ak fii nu toll waaye di am yaakaar lool si lii nga xam ne moom lañ dëgmal fa lañ jëm di santit mboolem taalibe yi képp koo xam ne sa yaakaar génnut maam Cheikh Ibrahima sëriñ baa ngi lay sant ci sab taxawaay lu jiitu ak fii nu toll jataay bii nag ni nu ko waxee sëriñ bi dafa moo digle woon nu woote ko ngir fàttalente rek lii nga xam ne mënu nu fi indi te bàyyi nu fi muy sunu jaamu yàlla di liggéeyal sëñ Touba muy gannaaw ba nu jotee ndigal mu jóge si ki nga xam ne sunu yaakaar yëpp si moom la wékku di sëriñ Touba Cheikh Modou Mountakha mu yaatal ko ci fi nga xam ne yëpp war na faa àgg ñi nga xam ne ñëpp baat boobu dong moo leen tënk muy baatum ndigal sëriñ bi nag di fàttalee ngir ñun ñëpp ñu delluwaat laabirante ñun ñëpp ñu delloo siwaat sunuy xel si lii nga xam ne mooy bëggu ki nga xam ne moom rek la ñuy liggéeyal bu ko sëriñ bi waxee nag dafay tàmbalee liggéey bi si njabootu boppam gi wala mu tàmbalee kàddu gi si njabootu boppam gi muy njaboot gii sës fi moom di njabootu Cheikh Fall waaye kàddoom gii law na ba àgg si képp koo xam ne sa yaakaar génnul Serigne Touba képp ku di am murit wala képp ku ab jullit di bëgg lu baax sëriñam Amdi Fall kàddoom gii ak lii muy sàkku mi ngi koy sàkku fi yow muy gannaaw ba nu xamee ni li nuy dimbali sunu njariñ tey ak ëllëg li nu diggee sëriñ bi lépp yaakaar jëpp mu ngi wékku si Serigne Touba tey Cheikh Modou Mountakha toog fi di moom li li nga xam ne moom la yéene ak bëggam mooy nu fexe ba lanu diggee ak moom nu fexe ba sàmm ko nu fexe ba tënku sa loolee kenn ku ne day lala dugal si yoon wi yaa ko wax lala tënk yaa ko wax ndax kenn ku ne ba ngay tàbbi fa nga xam ne bunt ba nga tànn da ngaa sukk foofa wax ni maa ngi jëbbal sama bopp àddina ak àllaaxira lu ñu ma digal dinaa ko def lu ñu ma tere dinaa ko bàyyi loolu yi nag ay kàddu la yoo xam ne siw làmmiñ rek lay jóge tàbbi sim nopp waaye lay tax mu wér mooy boo ko waxee ba jóg nga daal di jooyal nag sa pexe yëpp ak sa jëf yëpp ak sa yëngutu yëpp si màndargal kàddu yooyee dëggal ko si ay ay jëf dëggal gi si ay jëf nag mooy fexe ba liy bëggug sëriñ bi lépp lu mu la digal nga nekk sa loolee te nga wone ni sëriñ moomatoo sa bopp ndax sëñ Abdu Lahat la mu doon wax ku jaay lëf te yaakaar njëgg lool génn sa loxo kon ku sukk jébbalu na xam ni moomatul boppam benn baat rek a koy tënk muy baatum ndigal baat boobu nag si lanu nu mën a jëlee tawféexu tey waaye si lanu nu mën a jëlee tawféexu ëllëg kon sëriñ bi di fàttali. loolu yi gannaaw ba mu ko fàttalee njaboot gi muy fàttali mbooleem ku di ab murit mboolem ku yaakaar sëñ Touba wala ku di ab julit waaye sëriñ bi di fàttali rawatina mboolem ku dëkk Touba gii nga xam ne Touba moom ngóor ak njàmbaar indiwu fi kenn bayu fi kenn ndimbalu sëriñ bi rek nu fi indi kenn ku si ne da ngaa seet la nga mënta ñàkk te mënoo ko may sa bopp xam ne sëriñ bi rek ko am waaye sëriñ bi ubbi ko yaatal ko taw fii féexal nu nu daw wuti loolee tabbi sa di si dund di am yaakaar si àdduna waaye am yaqin si ëllëg ni àjjana rek la ñu jëm ngir jëm sëñ Touba kon ñi dëkk Touba ëppee ñeneen ñi leen ëppale leen lenn loolu ni dañoo am xañ na tawféex goo xamante ni gii xañ na ña ak seegul amaguñu tawféex googee tawféex googu nag bu nu ko amee du lu nuy damoo du lu nuy tiitaroo waaye dañu si sant kanu dimbali ba nu am ko muy sëriñ Touba ndax Serigne Touba rek lañ fekk si muy sunu yaakaar tey di sunu yaakaar ëllëg Serigne dëkk bii nag. sëñ tubaa dafa jaay ak dundam gépp ngir sunu ngir ngir ngir am dëkk bi kenn ku ne xam na ni dëkk bii mayuñu ko sëñ tubaa lebaluñ ko ko tey luñ ko dañ koo jaay si njëggu lew dam moom moo wonoon ginnaaw gannaaw ba mu jaayanteeg rasulillahi salaay salaam won ginnaaw ak njabootam won ginnaaw li mu gën a bëgg won ginnaaw lépp dem liggéey boromam dem liggéey rasulillahi salaay salaam ngir booba ñu won ko lii nga xam ne mooy pay gi te mu xam ne moom li mu bëgg di tax mu jóg la ko koy may mooy fay gi mu àgg sax te bu boobaa mu lew ko doom ñu bu ñu fàttalikoo Serigne Touba li mu daj keroog ba mu jógee Mbacke Kajoor euh, wala Mbacke Bari ba ni mu dellusee fii fi Touba ñu xam ne li mu daj kenn ku si nekk di ab murit wala ku du murit sax benn benn benn étape képp doy na sëkk nga xam ni njukkal la nga warloog sëriñ Touba weesu na muy digle nga bañ koo jëfe wala ngay doxee noo xamante ne si si li nga xam ne da koo liggéey ba nu fay ko ko jagleel ko ko nga ne dama si doxee noo xam ne noonu rek moo ma neex te loola wuuteeg li nga xam ne mooy bëggug Serigne Touba ma jàpp ne njukkal li nu warloog Serigne Touba du Serigne Cheikh Modou Mountakha wax ñuy teg dara si kaddu ya nga xam ne moom la jibal ndax sëriñ mun taxaa day na fi Serigne Touba nekke woon rek la fi nekke ndax mooy Serigne Touba diglewul lu wuuteeg la Serigne Touba daa digle terewul lu wuuteeg la daa tere te Serigne Touba terewul lu wuuteeg li yéen li yàlla digle tere waaye digle wulit lu wuuteeg la sunu borom subhaanahu wa digle kon Cheikh Modou Mountakha lu baax rek la bëggal murid yi lu baax rek la bëggal jullit yi waaye lu baax rek la bëggal mbindeef yëpp seddu na ndax Serigne Touba moo waxoon irham jami waraa kon ak ñaanam yemut si ñii nga xam ne ñooñ lañ jàpp ne ñooy njabootu Sëñ Touba waaye képp koo xamante ni kii bëgg nga yàlla bëgg rasulullahi xamal ni yaa ngi si biir njabootu Sëñ Touba googi te lépp lu mu def wala lépp lu mu ñaan dëxëñ na la sa biir kon li nu warloog Serigne Touba gannaaw ba nu gëmee ni ay murit lañ di dund yaakaar ko sunu gannaaw bakkanit amuñu dara lu ñu dërloo amuñu lenn lu ñuy yaakaar lu dul rammuk Sëñ Touba xaadimu rasul kon war na nañuy delloo si suñu xel si dox wépp doxin boo xamante ne bii wute na ak luy sàmm war may Touba lépp loo xam ne bokk na si luy xotti war may Touba bokk na si luy nuróole Touba ak yeneen dëkk yu mel ni moom loole murit bu ne gàcce la si yow ngay ñu naan ngay toog di dégg ñu naan Touba ak fépp a ndax Touba ni suñ sëriñ Touba def ba am ko foofee keneen defut noona ba am fa mu am kon li ñuy delloo njukkal sëñ Touba moo ñu xam ne sëriñ Touba dëkkam bii li mu fi sàkko dundam googu mu jaayante woon wan ginnaaw lépp ñun ñu war koo delloo njukkal nag lenn rek lanu nu la sàkku si nun mooy li mu nuy digal te muy lu baax mu sàkku nu aw sa loolee ngir nu mën a jariñu kon loola la am Amdi Fall mu Serigne Modou mbenn di woo boppam di woo njabootu Cheikh Rafal gii di woo mboolem ko di taalibe Touba gii ñu waggar waggaral ko sëñ Touba Cheikh Modou Mountakha nu sàmmal sëñ Touba Cheikh Modou Mountakha kàddoom gi ñu sàmmal sëñ Touba Cheikh Modou xaa dëkk bii di Touba waaye ñu sàmmal Cheikh Modou Mountakha war ma ji nga xam ne sakku na ko te am yaakaar si nun taalibe yi ngir nu kenn ku ne fa nga féete nga taxaw tem ba kenn du xotti war ma si sawet jëmale ko si Touba. loolu nag dañ ne ku wal mburu tuddub dëkk sëriñ bi dafa tudd ñii di njabootu Cheikh Rafal waaye jàpp nañ ni képp ku képp ku di murit yaa ngi si biir njabootu Cheikh Rafal ndax lii nga xam ne moom mooy boole nit si ak murit loola la Cheikh Rafal jàngale woon ba ñu ñëpp fekk si ko si ànd seeg moom nangul ko ko kon sëriñ baa ngi woo képp koo xam ne ab murit nga képp koo xam ne kilifa nga képp koo xam ne euh, mbokkum taalibam mm, su jàmbar jooju la te nekk fii yaakaar sëñ tubaa mu ngi lay woo si wet gën a féete nga gën a jàpp bu baax gën a soññee bu baax gën a waggar bu baax li nga xam ne mooy war ma jënu sëriñ bi sàmmloo nun kat bu nu demee ba moo du mun Muntaxa baatam bii ñu wayefal ko mbaa bu waxee nu siy teg dara mbaa bu diglee nu bañ koo def ñun booba defatuñ dara seddina ndax li nu fi indi te bàyyi nu fi mooy jaamu yàlla te la sëñ Abdou Lahad waxoon sunu jaamu yàlla ak sunu topp yàlla lépp dellu na si liggéeyal Serigne Touba liggéeyal Serigne Touba nag mooy déggal ko ndax ñi ñi ñi jaruñ si moom ñëpp dañoo jëloon seen lépp jox ko déggal ko mu leen di digal ñu di ko jëfe mu leen di tere ñu di ko bàyyi kon Serigne bi mi ngi soññ ñëpp. ndaw ñi ak mag ñi góor ñi ak jigéen ñi Baye Fall yéen ñu xam ne li sëriñ bi digle du ni ko sëriñ Aliou Fall waxe léegi sëriñ bi dafa wax ni nun nu suñu bopp fenn di teg keneen fi suuf danoo doon ay taalibe yoo xam ne naka jëkk Cheikh Rafal daa nekkoon liggéeyaa konu sëñ moo Cheikh Modou xaa wax na ko ne naka jëkk Cheikh Rafal moo doon kaarangay yoon wi loolee nag foofee nag lanu fas yéenee féete fas yéenee faa jóge kon na ñëpp xam ne lii dox jóguñu ngir fitnaal kenn jóguñu ngir woon kenn ne ko dañ laa ëpp ak taalibe wala dañ laa gën a jege sëriñ bi danoo fas yéenee dox si doxin tànk yooyu nga xam ne moom la Cheikh Rafal doon doxee si kër sëñ Touba mooy laabirante ak ñi ñu bokkal sëriñ bi laabirante ak ñoom maslaa ak ñoom di fàttalente ak ñoom ndax doomu aadama moo baaxoo di fàtte si ndigal lii nga xam ne waxtu wu ne mooy jóge si sëñ Touba di tàbbi kër Cheikh te bokk si li nga xam ne moo nuy jariñ tey moo nuy jariñ ëllëg kon lii nga xam ne nag moo fi xew ba tax sëriñ bi wax nu yëkkatiwaat sunu kàddu kenn ku ne xam nga ko sëriñ Bada laal na ko ndax Seex Moodu Muntaxa moo yëkkati woon fii kàddoom wax ne bokk na li ko gën a metti si dëkk bi bokk na si politique bu waxee politique nag <clears throat> dafay mel ne ni nu koy defee loolu la sëriñ bi bëgg a wax mooy nii nga xam ne noonu la ñu xam léegi mu mel ne li xewoon bërki démb ñoo xam ne danoo jóg ah di dox doxin woo xamante ni bii doxin wu wuuteeg war ma la dañuy warloo sëñ ndax lii xew fii démb bërki démb di ajjuma nu jekki ba jàkkaarloog jumaa ji nga xam ne bu ñu doon dabi sëñ tubaa fa lañ koy fekk jàkkaarloog jumaa ji jàkkaarloog kër njabootug siriñ tubaa gii nekk si kaw mbedd mi di taal ay pono di yàq ay ay jumtuwaay yoo xam ne ña ko moom dañ koo dañ ko dañ dañ koo saytu alal at yu yàgg yàgg yàgg di di di di di euh, tiital nit ñëpp ba ñëpp daw dugg seeni kër loolee day yaakaar naa lépp loo xam ne moom la ñu bëgg a faj bu fekkee loola moo koy faj xam naa ne loola du fajoo fii fi Touba ci anam yooyu Touba daal lépp lu fi fajoo mooy ay teggin mooy ab yar mooy principe yooyu nga xam ne mooy makarimal axlaax si la Serigne Touba Cheikh Rafal tënk ak taalibe mooy ni ab taalibe mën a wen daa war a jub daa war a lewet daa war a laabiir daa war a tabe daa war a daa war a ba yooyu yëpp mat nga xam ne yow mii kat matale nga jikko yu rafet yooyee loolee nag mm, muy mag di ndaw di góor di jigéen kenn ku si nekk da nga saa am walla ndax kenn ku si nekk tey li li li li sëriñ bi doon wax naan Euh, sëñëb Abdoulaye wax na ko mu ne yonent bee ko wax wa kulluhum aatihi yawmal qiyaamati fardan ba kenn ku ne da nga layoo da nga nga wéet ak sa borom ba yaakaar ne yow dong la sàkkoon si àddina loola kenn ku ne sa jëf rek desu fay si jëfi kenn desu la si jëfi kenn kenn ku ne sa jëf rek lañ lay attee kon ba nu demee ba yeewu si loolee waroon noo fexe bay rafetal suñu jëf gannaaw suñu yaakaar jëpp nag si sëñ tubaa lañ ko wékk nanu nanu fexe ba suñ digg ak sëñ tubaa lépp leer mooy nanu nanu warmaal sëñ tubaa nag warmaal Cheikh Modou Mountakha si dëkkam bi sëriñ wax ne lii fi amoon mi ngi koy tuubal Cheikh Modou Mountakha di ko tuubal njabootug sëriñ Touba gi waaye di ko tuubal murit yëpp di tuubalit ña nga xam ne ñoo ko doon def di di di toog fa di di leen di leen di leen wóotu si seen i jëmm di leen tuubal Cheikh Modou Mountakha ngir mu jéggal leen ndax sëriñ bi day am na si lu ko naqari lool te naqaral def lu naqari Cheikh Modou Mountakha loola dara jaru ko kon sëriñ Amdi Fall nee na mi ngi tuubal murit yi nga xam ne ñu donte danoo juumoon wala donte jàpp ñu ni danoo juumoon lépp lu nu def loo xam ne wuute nag worma ji mi ngi leen koy tuubal si ci du Modou Mountakha di sàkku mu jéggal leen ko ngir jëmmi Serigne Touba waaye di leen ñaax nag di leen soññ ngir lii ban noo dalati mukk seddina mu nu demee ba mënunoo ñàkk a def yëngu yu mel noonu ñu jàll feneen foo xamante ni fii kenn bañu ko fa waaye gannaaw Serigne Touba muy Cheikh Modou xaa mi moom dëkk bi yilif ko yilif taalibe yi ànd ak ay rakkam ànd ay doomam ànd ak yëpp maase ne lii ma bëgg mooy nañ ma waggaral dëkk bii si lépp luy nurook politique wala yu mel noo ne loolee wax dëgg yàlla nun nag war na noo am jom war na noo am fulla war na noo am wax dëgg yàlla ah, faydak warmaal sëñ tubaa sàmmal Cheikh Modou Mountakha baat boobu yi nga xam ne moom moom la am kon Serigne Amdi Fall nee na mu ngi woo mbooleem njabootu Cheikh Rafal gi mu jiite tàmbalee ko si kër maam Saliou Fall Darou Khafour Chérif Assane nekk sa bopp ba mi ngi woo njabootu Cheikh Modou Moustapha Fall Serigne Ngounda Yacine Ndoki ak i rakkam Serigne Saliou ak ñu topp sa ñoom mi ngi woo kër Serigne Mbacke Fall Serigne Cheikh Cokki mi ngi woo kër Serigne Mortala Fall Serigne Abdou Rokhaya Fall ak i mi ngi woo kër Serigne Ali Fall Mbawor mu Mbawor ak i mi ngi woo euh, kër Serigne Abdoulaye Ndar Serigne Talla Fall ak i rakkam ngi woo euh, kër Serigne Ngounda Fall. sëriñ Cheikh Ngunda ak i rakkam mi ngi woo kër sëriñ Abdou Sakkoor Fall sëriñ Fallu Fall ak rakkam di woo euh, kër sëriñ Basiru Fall sëriñ Bada moom sëriñ Taale Yaasin xam naa suma ma juumut di woo see am Amdi Xadi Fall nga xam ni moom laa waroon na jëkk a tudd muy sëriñ Amdi Xadi Fall ibnu Chérif Assane Fall di ko woo mook njabootu Chérif Assane Fall gépp waaye di woo Euh, ñii nga xam ne ñoo sa si ñoom di seeni taaw di seen i doom Serigne Fallou Fall ibnu Serigne Modou Aminta Fall mi ngi koy woo ak rakkam yi sës si moom yëpp Serigne Cheikh Ndigal Fall euh, di woo Serigne Cheikh Fall Serigne Fallou Cheikh Serigne Cheikh Bintu Fall waaye di woo nag mboolem fukkeelu kër yeeg ñaar bu ma tuddee fukkeelu kër yeeg ñaar mooy ñi nga xam ne danoo jaayante woon ak Cheikh Ibra Fall wala jaayante ak njabootu Cheikh Ibra Fall ko ba ba laq seen ngërëm. mu gërëm leen tofal leen mbooloo seexal leen ñu ànd ak ñooñee di liggéey di so ba tey si kër maam Cheikh Fall suñu ko tuddee mooy cheikh yi cheikh yi fu fi ab cheikh nekk te cër ba nga am nga jëlee ko si ñaq wa ñaqal Cheikh Ibra wala ñaq woo xam ne sa maam wala sa wajur moo ko ñaqal Cheikh Ibra sëriñ baa ngi lay woo si loola mu ne si leen a tudd ñëpp nag ndax dañuy bañ a lim bu ñu limee mën na noo juum waaye képp koo xamante ni kii la nga am yaa ngi ko jëlee si kër maam Cheikh Ibrahima Fall sëriñ baa ngi lay woo nga taxaw temm te xam ne ndigal lii kër Cheikh Ibra Fall ko jox lépp lu si sooy na nu xam ne kër Cheikh Ibra moo sooy te kër Cheikh Ibra Fall musuta sooy mësa deltu ginnaaw taxawaay ba mu amoon démb moom la bu ko raw la am tey ndax tey la njaboot gi ëpp tey la jumtuwaay yi ëpp tey la xalaat yi ëpp tey la pexe yi ëpp kon nag sëriñ bi nee na lii de la mu jaral ña nga xam ne ñoo jóg di ko def ne du nu ko bàyyi muy xotti warma ji la mu leen jaral ba ñu di ko def war naa jaral lu ko raw maanaam sàmm warma ji yaakaar naa war naa war na koo jaral njabootug maam Cheikh Fall gi kon nag nanu xam ne ñoom sëriñ bi woo na leen si worma sëriñ bi woo na leen si ak dal sëriñ bi woo na leen si ak taalibe waaye ni ko sëñ Aliou Fall waxee li sëriñ tuubaa bëgg bu Cheikh Modou Mountakha faw day am kon nag ñi ngi ñaan bala noo àgg si lenn loo xam ne wóote naag loolee ñuy sàkku si ñëpp nag ñu dëllee si waat si lii nga xam ne mooy bëggu sëriñ bi te xam nañ ni fas nañ yéene duñu si jóg bu si suñuy bakkan doon des wala suñu njaboot ñëpp di si desit ñun loolu lañ jaayanteeg sëriñ Touba Cheikh Modou xaa kon li sëñ bi bëgg moom faw day am waaye nag suñu sañoon ñun ñëpp nu àndandoo gën a gannaaw ñun ñëpp bokk bëgg lu baax ñun ñëpp ànd di sàkkoondoo lu baax si benn méthode bu ñu koy sàkkoo benn façon bu ñu koy sàkkoo mooy jox sunu bopp sëñ bi yaakaar ko te yàlla rek tax ak nangu ko liggéeyal te yàlla rek tax di déglu ay ndigalam te bañ a jaar si ay tereem loola ñun ñëpp ko bokk kon nag loole nun ñëpp war nañoo ànd tënku si loole fexe ba nii ko sëriñ bi bëggee nu defe ko ni waggaral ko tuubaa gi sàmmal ko ko ba Touba ni mu ko seppee li mu si wax lépp si mat law fay seen ak feneen fu nu jaar ngeen xam ko muy lu mu liggéeyal yàlla ba yàlla fay ko ko loolee nan ko ko sàmmal ndax waxam jooju dëgg la te du naax say mukk seddina te suñu ko defulit yàlla dina fi wàcc yeneen mbindeef ñu def ko ndax sañ Tuubaa da ko liggéeyal boromam ñu fayee ko ko mu lew ko domm kon nag nun bu nu amee jom wala ñu am fulla wala ñu am fayda danañ sàmmal sëriñ Muntaxa baatam bii kon nag ñu ngi ñaan képp koo xam ne kii mën ngaa jàpp si liggéey bii si war ma ji sëriñ baa ngi sàkku si yow fa nga féete nga jàpp si tey jii ñu bari def nañ ay déclaration ay kilifa yu bari def nañ déclaration si seen njaboot gënu yilif ay kuréel def nañ ay déclaration ba ci oto yi nga xam ne ñoo yeb nit ñi di leen yóbbu kenn ku ne def na déclaration wax ni delloosiwaat boppam yeesalaat pas-pasam te te tuubalaat sëriñ bi sakku maanaam ni sëriñ bi lii dootu am mukk seddina lañ waxoon sëñ a sa lee jàll ne ko Mbàkke tuub nañ mu ne jéggal naa leen ree reem ju rafet ju jekk joojee dellusiwaat nañ di ko tuubal tey ñaan yàlla nag li nu dëgmal nu bañ a tàbbeeti si loola mooy kuréel yëpp nag fu fi toll kenn ku ne am nga si wàll muy ñii di tas xibaar muy ñii di def transport muy ñii di euh, nekk si marché bi ñi nekk si yoon wi rawatina nag ndaw ñi rawatina ndaw ñi si góor ñi ndax ñoom day yaakaar yaakaari sëñ tubaa si ñoom la ëpp yaakaar yi sëñ tubaa am ñoom ndaw ñoo ñi dey ñoom dong ñoo am taxawaayu mën a wéyal li nga xam ne mag ñi tàmbali woon nañ ko tabax ba mu agsi fii kon waruñu koo bàyyi mukk muy naax saay bu nu xool leneen jël suñu bët di ko teg feneen lu ñuy nataal dina ko won te xamuñu wér na wala wérut li nga xam ne am nañ yàqin si ne lii mooy yoon wi ndax suñuy wajur suñuy maam suñuy mamaat ñëpp si loolu lañ saxoon ba yoon wi taxaw tey jii ba agsi fii kon mënuñoo am lu gën loolee ndax amul lu ko gën amul kon nanu xam ne war noo mujjee puso bi mu réer kon maa ngi woon ndaw ñi maa ngi woon ndaw ñi góor ñi surtout te xam ne ñoom ñoo war a doon ye ñoom ñoo war a doon kaaraange ak yoon wi ndax bu ñu déggoon ci internet wala feneen nit yëkkati kàddu wax lu ñaaw jëme ko ci Touba wala sëriñ Touba ñoom la seeni sidit jëkk a yëngutu kon ñoom nanu fexe ba bu ñu def loo xamante ne si loolee dana tax ba ñoom bu ñu déggee lu mel ne ne du ñu mën a yëkkati seen kàddu ndax ay murid saadex ngeen ay ay ay ay ay ñu ñu am ngeen taw feexu dëkk Touba yaakaar sëñ Touba kon liggéey boobu mu ngi si seen loxo ñu ngi leen si woo di leen si tàllal loxo ak gépp kuréel goo xam ne gii ñu liggéeyal sëñ Touba ñor na la sàmmal sëñ Touba war ma ji ñor na la ñu ngi sàkku si yow ngir jëmmi sëñ Touba ak Cheikh Ibrahima Fall Serigne Amdi Fall mooy sàkku si yow nga ànd ak moom ñu àndandoo sàmmal sëriñ bi war ma ji ba xolam sedd guyi si njabootam gii nekk tuubaa ak fu njaboot gi mën a nekk xolam sedd si ñoom ñi ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di am yaakaar si ne euh, lii nu weesu weesu nañ ko waaye liinu nu dëgmal ñu am yàq yaakaar si ne lu mel nii dootu am mukk sedd na ñi nga xam ne ñooy ay acteur nag politique te nekk si dëkk bi di yëngu si politique am na si ñoo xam ne day joxe nañ exemple bu wóor ndax keroo fii day am na député boo xam ne mën na maa tudd turam woote na fii wax ni def déclaration ni moom de bis ni tey fësatut yéenee def benn activité boo xamante ni bii dina ko def si biir Touba ndax gannaaw bi sëriñ bi loola du bëggam moom fas yéene dem génn Touba di ko defee feneen loolu yi nag wax dëgg yàlla kenn ku ne waroon nga koo def ñi ngi séntu képp koo xam ne acteur politique nga yaa xam wet gooy yëngoo ñi ngi séntu si yow lii di bëggug sëñ xaa waaye waaye ñu dimbale ko si ndax li nu yaakaar si sëñ Muntaxa moo ëpp doole fop lu nu mën a yaakaar feneen ndax ajjin addina ak àllaaxira lañ yaakaar si moom kon bu nu ko jaawale wala bu nu ko jënde leneen loo xam ne fii dong la yem wala boog soriwul dara kon nañ delloo si sunu xel yi te delloo si sunu xol yi tënkaat ko si Serigne Touba ñi ngi woo acteur politique yëpp rawatina ñi nga xam ne ñoo doon manifeste ñi ngi ñaan bu nu ko mënta ñàkk a def ñu génn defe ko feneen si ma waaye bu tuubaa euh, jomb war na noo jomb di yéeg si ay oto di sol ay soennement di taal ay pneu di toj yëfi jàmbur di yàq ak lu nu si mën a yëpp lu nu si mën a puus loolee nu yàq nooy wëlbatiku rek soxlawaat ko war koo jariñoo te dina fekk booba nu xottiwaale war ma weddi lii nga xam ne mooy bëggu sëriñ bi kon ñi ngi sàkku si ñëpp ñu delloo siwaat seen i xel te xam ne sëriñ tubaa rek la nu am sëriñ tubaa rek la nu jaayanteel kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. auzu billahi mina bismillahi rahmaani rahim barke borom Touba barke maam Cheikh Ibrahima Fall ñoo ngi tàmbalee suñuy kàddu di ñaanal sëriñ bi ak kilifaam gu tedd gi sëñ Muntaxa ñu yàgg fi loolu te ñu yàgg ànd ak ñoom yàgg topp seen ginnaaw yàgg leen a liggéeyal waxtaan wi nag li ko waral mooy war may Touba li ko waral tam mooy worma ji bu yàggul dara dañ koo xotti waaye nag nañ dellu si suñuy xel rek xool pàkk yi nga xam ne ni dañ dañ leen di wormaal ci àdduna ba ci pàkk yi nga xam ne sax duñu ay jullit nekkuñ fa dañ leen di ormaal ci àdduna bu ngeen demee màkka gis ngeen ni màkka mel bu dee pàkkub jullit pàkkub jullit pàkk bu tedd barab bu tedd dañ koy ormaal te suñ barab bii sëriñ Touba moo fi nekk tëdd fi ñuy dox di joggi suñuy tànk ci suuf buñ mënoon a bañ a laal suuf sa ak suñuy tànk loolu moo gën ci ñun boo demee fu mel ne yeneen barabu lislaam yi nga xam ni dañ leen di ziyaare muy Jéru muy euh, Palestine ak foo Isra euh, Jérusalem ak foo dem ci àdduna foo xam ne dañ koy park pàkk bu tedd la ña fa nekk am nañ fulla ju toll ne ormal barab yooyu boo demee ci yi nga xam ne du ñu ay pàkk jullit boo demee fu mel ne ci dal Dalai bi ci Chine wala nga dem fu mel ne ci Vatican bi euh, ci ci ci Rome ci Italie euh, am na ña fa nekk ñoo xam noo xam ne noonu lañ màndarga woo nga xam ne ku leen gis rek xam ne ñu ngi ormal barab ba nga xam ne loolu dañ cee yar seen bopp ba nga xam ne euh, seen yaram tàmm na ko ba noonu la ñuy dundee ci barab yooyu léegi nag dafa mel ne fii ci tuubaa Serigne Touba moo fi nekk ay muritam nekkal ko fi ñaar nag am na loo xam ne seetlu nañ ko muy ñi nga xam ne dañoo nekk ci biir tool bi di ruur tool bi féete ci biir ñag bi ak ñi nga xam ne dañoo nekk ci biti tool bi di ruur tool bi féete ci biti biti ñag bi waaye lu ci mën a xew ci ñaari wet yépp nañu xam ne na nañu xam ne sëriñ bi am na am na am na ay murit yoo xam ne xaju xajuñu ci kenn xajuñu ci kenn lañu waxoon nag mooy dañoo waxoon ne dañoo am ñetti ngànnaay bi ci njëkk mooy communication ak ba ca topp di masla waxoon nañ ne am nañ ngànnaay yoo xam ne bugguñu koo génne ndax ku féeteerlu rek mooy mooy mooy tax ñu génne ko euh, mooy ku dugg ci wa maskani sallim minal jaar yi foofu nag bëgguñu fa àgg kenn waaye nag am nañu xereñ am nañu diplomatie am nañu masla waaye nag ñàkkuñu fula ñàkkuñu fayda te xajuñu ci kenn murit yi xajuñu ci kenn léegi nag suñu liggéey bii am nañ ci réseau de renseignement yu wér yoo xam ne nii xam nañ lépp luy daw Touba ruq bu ci nekk xam nañ la fa nekk ñay yëngal ak di def safaan fu ñu mën a féete ak nuñ mën a sant ak fu ñu mën a bokk xam nañ leen ndax suñuy réseau de renseignement wax nañ wax nañ ñu ñooñ ñëpp fu ñu féete ak ñan lañu xam nañ leen nag nañ xam ne ñun xam nañ ñooñ ñëpp nag léegi nag ñëpp àdduna yëpp gis nañ ne biñ jugee lañ waxoon lañu def keroog ci manifestation bi weesu ñu nag xale yi ñoo nekkoon def benn say di waxtaan xale yi nga xam ne ñoo doon manifester nekk ak ñoom di waxtaan ak ñoom di maslaa ak ñoom ñëpp gis nañ loolu daluñu seen kaw benn yoon wanu wanuñu leen dara loo xam ne safaan la loolu maslaa lañ doon wane waaye nag ñàkkuñu fulla ñàkkuñu fayda te buñ demee ba sës fi ñu war a sës lu ñu war a jëfandikoo danañ ko jëfandikoo léegi nag sëñ daam wax na fii ay kilifa yoo xam ne tudd na leen ñoom ñëpp ci liggéey bi lañ bokk mbooleem njabootu maam Cheikh Ibra Fall gi ci liggéey gi liggéey bi lañ bokk te benn ci kër maam Cheikh Ibra maam Cheikh Ibra yi rek xajul ci mbooloo mbooloo muy manifester xajul ci mbooloo muy manifester kon nag bu Baye Fall yëpp jugee te sëñ bi bu leen ci joxee ndigal bu soobee yàlla ñëpp danañ jug te ñëpp danañ taxaw foofa nag bu ñu fa àggee nag foofa maslaa dootul bëri te foofa nag mën nañoo dox ba àgg fa moo tax nag ñi ngi wax ñi nga xam ne ni ñoo nekk ci dëkk bi tey doxe safaan nañ xam ne ni ñuy doxe ñun dugg ragal dugg ragal ra la maslaa la naxante la waaye nag ñun ñëpp jekk nañu te jaral nañu lépp jaral nañu suñ bakkan jaral nañ suñ alal jaral nañu suñ njaboot jaral nañu lépp bis bu ñu demee ba xam ne lii mënta ñàkk fu waay mën a nekk ak koo mën a doon ak noo mën a taxawee danañ la fekk foofu te danañ ko lijjanti suñ bopp ci ni ci niñ ko war a lijjantee mboolem kilifa yi nga xam dañoo bokk ci yoonu Baye Fall jekk nañu te taxaw nañu saa yu ñu leen soxlaa danañ jug kon nag ñi ngi woowaat nit ñi ci njëkk ak teraanga ñu fekk sëriñ bi ci lim bëgg ñu fekk sëriñ bi ci lim bëgg ñi ngi ñi ngi ñi ngi wax ne dara umpuñu ci dëkk bi liñ fi war a xam yëpp xam nañ ko mboolem kilifa gu fi nekk nekk ci am noo taxawee xam nañ ko mboolem mbokkum taalibe mu fi nekk am noo taxawee nu dul noonu xam nañ ko loolu nag buñ àggee fa fañ ci war a àgg luñ ci war a lijjanti danañ ko lijjanti waaye àggaguñu foofu ba fii ma toll di wax ñi ngi woon nit ñi ci maslaa di leen wax ne nañu dimbali ngir yàlla ak jëmmi sëriñ tubaa mi nga xam ne ni moo nekk fii ci dëkk bi tëdd fii ci dëkk bi nañ war warmaal dëkk bi warmaal Serigne Touba warmaal sëñ Muntaxa mi fi nekk warmaal yeneen kilifa yi fi nekk ndax ñoom ñëpp mbooleem ku fi nekk te dëgg ñor la Serigne Touba ñor la dëkk bi ñor la te nga bëgg lu baax xam li fi sëriñ tubaa woote ak li mu fi digle lii xew keroog naqari na la mboolem njabootu maam Cheikh Ibra Fall bi ak mboolem Cheikh yi. ñëpp ñi ngi waxtaane loolu te am na ci loo xam ne nag bu bu bu bu dakkul mën naa àgg foo xam ne gën a gën lu ñu woon te bu boobaa nag lijjanti ko nag day daal di jot te bu boobaa danañ ko lijjanti ak lu mu ñu mën a jaral danañ ko lijjanti ñu ngi jéggalu bu baax di jaajëfal bu baax di sant ñëpp